è un giorno molto importante perché sappiamo tutti quanto, quanto rappresenta il 18 Safar per la comunità senegalese ma soprattutto per la comunità Murid. E qui davanti a noi c'è la sorella Monica Lazzerini che ha chiesto di diventare musulmano, musulmana scusate, in questo grande giorno davanti a Serin Io lascio il microfono a Serin per procedere alla cerimonia. Deve parlare con lei, dirvi delle raccomandazioni e delle parole che deve ripetere. Magari vuole che io eh, ripeto in modo in italiano, in modo che tu capisca bene quello che vuole dire. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, che vuol dire Deve ripetere, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu. Allah, Allah, Allah, ha, Allah, la Allah, Ashadu. Allah, Hamad, Rasulullah. Questa frase significa che da questi istanti lei è entrata nella religione musulmana, sei diventata musulmana, benvenuta sorella. Conosci i cinque, eh, le cinque eh, pilastri dell'Islam. La preghiera, Giulia, Word? Aspetta. Pellegrinaggio alla Mecca. Un ajfau. Azaka. Musakat. Abbiamo defile shahada. Eh, la shahada, quello che hai fatto ora. Ecco, giuromi io mai poco che l'Islam. Questi, questi cinque sono i cinque pilastri dell'Islam. Ah. Leghi, le ci des? Quello che, quello che resta c'è qualcosa. l'islam che raccomanda l'islam. C'è una surra che dice Dio dice eh, quelli che dobbiamo dare. Eh, il, la sua radice. muy ñu yàlla wax ne dañ leen a war a ñu doon génne juróom-ñett yooyu yàlla wax ci alquran kuy soog a dugg ci diine ca la bokk. Questa sura dice eh, eh, elenca eh, le orde le otto particolarità delle persone che devono ricevere la zakat e su queste otto persone quelli che sono appena entrati nella religione eh, fanno parte dafa bokk ci in islam ginnaaw loolu ci wolof laa koy wax mën naa ko wax ngeen dégg ko bu noppee Pape Demba tekki ko ñi ko déggut dafa bokk ci aaday lislaam ku dugg ci lislaam donte mën na boppam it dañ koy bégal kooku yàlla moo ko santaane moo tax danaa ko def bi muy benn ñaareel bi danaa ko defaat ngir barkeelu ndax defe naa ci jataay bii am na ñu fi fekke ñoo xam ne fekke nañ at mi ma fi jëkkee ànd ak sëñ Alaaji Baara te ngeen dalal ko fii ci wetu dex yi daje woon ak tawfiqul haadi doon fi ñëw muy ñoom ma di keñang murit waxuma ma di keñang politicien rek ma di keñang murit laay waxal man du wax ci politique du ma wax ak politicien waaw ah, ma di keñang murit ba fi ñëwoon ànd ak sëñ Abdou Fatah ñoom at moomee ci ëllëg sa bi ñuy defal sëñ alaaji baara ab ziyaar am na italienne bu mu fi tuubaloon hmm. Hmm. am na italienne bu fi tuubaloon jaare eh, fañ Euh, taalibe yi fi nekk nañ dajale àddiyee jox ko loola war naa am ñaar fukki at ak nàngam kon bu ñu demaatee ba jotaay mel ni toog euh, lislaam dig digle loola te sëñ bi defoon ko fii ci Pisa tey sama buntu sëñ Tuubaa ma barkeeluwaat ci Hmm. waaw kon ni ko lislaam santaane nañ dajale addiyee jox ko comme ni ko laaye bi santaane ñu laajal ko jox ko bu ko defee itam nga jottali ko ginnaaw rajo yi leeru waxaat ko ba mu leer taalibe yi dégg ko waxaat ko ba mu leer jigéen ñi dégg ko waaw su ko defee loolu lislaam ko santaane nekkul ne dafa lottu ñu koy dimbale waaye lislaam ko santaane dégg nga aca kon man la ko nekk bisimilah nangu leen ñaan